ndax yéen ñëpp xam ngeen ne Casamance ci li ñuy wax potentiel économique ci koom-koom te lu ci bëri di yàqu ci àll bi ñu xam ni Parcelles Assainies commune bu mag a mag la am lu mat quatre cent cinquante mille habitants war war a mun a soxla lu bëri loo xam ne ma ngay yàqu fële kon loolu moo ñu andi woon ñu ñëw monsieur le maire dalal ñu ak euh, conseil municipal ci anam yu rafet biñ ci génnee nag la ma ne il faut ñu jaar fii nuyu militants yi am na quelques militants yu daje fii ñu jaar nuyu leen kon ñi ngi nuyu kilifa yi ñu fekk notable yi di nuyu militantes yi ak militants yi jeunes comme moins jeunes di nuyu dëkkandoo yi taxaw seeni terrasse wala seeni balcon bi ñu déglu di nuyu waa Parcelles Assainies yëpp ne nag liggéey ma fa yóbboon ci moo ñu fi andi nee naa leen kàddu gi du gudd yéen ñi ñëpp su ngeen fi dajee Sénégal yëpp bu amee yaakaar ci ñun la liggéey suñu digganteeg yéen ci juróom-ñetti at yi weesu moo tax ngeen am yaakaar googu du xaalis guñ leen jox du ay dig yuñ leen def dañu waxtaan ak yéen ci réew mi wax leen li ne ci réew mi wax leen li ko yàq wax leen li koy defar moo tax ngeen wóoluñu gëm ñu ba di ñu topp ba mu jaral leen ay sacrifice loolu nga xam ne nag dañ koo bokk liggéey ba egsi fii nga xam ne tey ku am seetlu ci senegal ku am seetlu ci Afrique ku am seetlu ci àdduna dina xam ni fukki weer ak ñaar moo dox suñu diggante incha allahu ak ñu mun yegg fa ñuy jëlee décision yi ba jël décision yi baax ci askan wi loolu ñëpp xam nañ ko yaakaar googu nag nga xam ne sénégalais yi am nañ ko moom la ay tappalekat ay yoo xam ne Macky Sall moo ci jiitu am ngeen ñu ngi leen di gërëm maa ngi nuyu ñi nekk ci biti yëpp te mënuñoo dugg ci kër gi bu ñu dajee fii bañ bañ leen may lu ñuy defee li ñu yàgg def moo tax ñu daje fii ndax suñu génnoon taxaw fii léegi ñu ne trouble à l'ordre public te bis bu ne ñoom seeni militant nekk ci mbedd mi te kenn du ci wax waaye li ma bëgg a wax ma dellu ci li ma doon wax yi laay waxal ñi fi nekk échantillon bu ndaw lañ ci est-ce que sénégalais xam nañ ni li nga xam ne moo tax ñu am yaakaar ni ëllëg dina dàq tey li nga xam ne moo tax ñu am yaakaar ba di muñ jafe ba jafe-jafe yi ñuy dund yëpp parce que sénégalais boo jël jàpp na ni nu mu métti métti métti fii ak février 2024 mu jeex bu soobee yàlla loolu nag loolu nag la ay tappalekat yoo xam ne nee naa leen ki ci jiitu mooy Macky Sall ci boppam bu fas yéene ci ànd ak ay magistrat lenn ci justice ñoom jàpp nañ ni mën nañu def ay pexe ba février 2024 Ousmane Sonko mii taxaw seen kanam du nekk candidat ci élection mbokk yi mbokk yi est-ce que bëgg ngeen Sénégal bëgg ngeen Sénégal gis nga réew mu mësa baax ci àdduna dafa am génération boo xam ne dafa nangu joxe lépp pour que suñu doom yi ma gis nii xale yi am juróomi at tekk fi Sénégal bu gën Sénégal bi Macky Sall ëpp fu de moom ak ñett ñoo ñett wala juróom nit mu àndal waruñoo ëpp fulla barki démb nag dem nañu fay ay nit xam nga ñun suñu man fi mu ne nii xaw moon sax dinaa fekk lii amul kenn ci yéen koo xam ne jox nañ ko cinquante francs ñoom ñoom barki démb barki démb dem nañu fay ay nit ñii deux mille ñii yéen ñëpp gisandoo xale yi nee nañu ñun Sonko la ñu àndal kaas kaas kaas tax a ñëw fii kaas kaasu tax a ñëw fii waaye li am solo ci daje boobu am na benn homme politique bu dëkk fii parcelle nee na homme politique boobu nee léegi dafa am fit kooku maa ko xam man maa ko xam ku gën a kooku ci àdduna amul waaye nee léegi dafa am fit ba ñu lay dànkaaf homme politique boobu ñu koy tuddee Amadou Ba ndax man bokk ma ak man damay jaar ci digg ba nee na nee na force restera à la loi gis na si force devait rester à la loi moom tey mi ngi taxaw ci kanamu yoon di layoo fa mu jëlee ay ay milliards Sénégal ñu warul wax rek wax. tappale na bu ko amuloon fit ku waroon wax moom mooy wax waaye nag bukki bu yabee waxambaana waa parcelle ndax pare ngeen keroog dama wax Kër Massar may leen gat sa gat sa mbir mi jeex na de te fiñ koy doore mooy après meeting de Mbàkke bi te Mbàkke dina xumb de te kenn lañ koy jox xaalis bu mu dem fa duñu seen moroom lañu yem waaye bu soobee yàlla après meeting Mbàkke bi la ñuy mooy manifestation nationale et internationale dootuñu ko def dootuñu ko def benn bërëb commune bu nekk ci Ndakaaru na def manifestation xam ngeen pour lan pour ñii ñuy jàpp bis bu nekk bis bu nekk ngeen dégg jàpp nañ nit barki démb am na kuñ jàpp fii Parcelles Assainies Macky Sall dootuñu ko may loolu nappaate bi jeex na jaay doole bi jeex na bu dee Macky Sall jàmm la bëgg dina am jàmm ci réew mi bu dee safaan bi la bëgg na xam ni réew mi moomu ko doon ko ci ay kon duñu guddee wax ji ñu ngi leen di gërëm liggéey gi dina ñëw dama ne xam nga ñoom ñi bokk APR comme lajj nañu s'il vous plaît dama ne ñoom waa APR xam nañ ñi duñu seen moroom ci réew mi xam nañ ñi minorité sociologique lañu xam nañ ñi minorité politique lañu ki dem barki démb ñu ne mooy premier ministre naan ñun lay menacé ñëw na fii parcelle juróomi weer ci gannaaw xëpp bi xaalis bu dul jeex fan la mujje dóor nañ ko dóor yu métti seen mbir yëpp nag yaakaar nañu suñu làqoo ci gannaaw gendarmerie ak police war nañoo mën a def leen neex ci réew mi réew mi jàmm moo ci xaj na ñëpp dox jàmm waaye su amee ñu foog ni mën nañ nekk ci jàmm teg ñeneen ñi fitna ndax nañu seen bopp te loolu waa APR nañ koy bis tey kon ñun ñett dañu waajal suñu bopp adduna ñun ñëpp dañuy romb rek ñun ñëpp dañuy romb ku fi nekk rek amoon nga koo xam koo màggandoo wala koo dëkkandoo te nekkatu fi amul dara lu fi jar a ragal du ñu nangu Macky Sall tappale ak justice am pour tere ñu ñu nekk candidat 2024 jël réew mi defar ko ba Sénégal ngay gis si boppam waaye duñ ko nangu kon ñu ngi leen di gërëm di leen sant di leen jox di daje fan yi incha allah salaamaaleykum